الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا عمر بن حفص مما عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي muy dàqante lam nekk abu xasan al kuufi rahimahullahu taala di waa kuufa moom حديث من ñaa xadisa bi saxiixi saxiix imaam al-Buxaari ak saxiixu imaamu muslim ñoom ñaar ñoom ñoo solo ci seen saxiixi naka noonu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa asxaabu sunan te moom mooy as-sunanul ñoom ñaar ñoom ñëpp solo nañ ci moom ba mu des al imaam Ibn Maaja ñoom solo nañ ci moom ñoom ñëpp solo nañ ci moom waaye dañuy solo ci benn kenn kooku solo ci keneen. Euh, maanaam kooku solo ci moom maanaam du nekk seen sëriñ directement euh, ba mu des imam ibnu maaja euh, ci kutubu sitta yëpp am na ci si 135 xadis comme ni ñu ko waxee woon ci ñaari saxeexi saxeex imam al buxaari 89 xadis la ci am saxeex imam muslim am na ci 15 xadis bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo soloo ñoom itam ginnaaw ñaari imam yu mag yii di imam al buxaari ak imam muslim rahmatullahi alayhima moom mooy imam ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi ak ahmad ibn yusuf as-sulami ak ismail samawayhi ak muhammad ibn yahya az-zuhali ak yaqub al-fasawi ak ñeneen rahmatullahi alayhim moom mi ngi génn imam al-bukhari rahimahullahu taala nee na mi ngi génn àdduna deux cent vingt deuxième année am na ñoo xam ne rahmatullahi alayhi comme li imam al-hafiz al-ayni wax rahimahullah Ah, imam az-Zahabi rahimahullah nee na amul kenn ku ñu soloo ci moom maanaam moom solo wuñu ci moom lu dul ah, mu jëlee ci baayam maanaam ñooñu la ñuy wax al-wuxdaan mooy ñi nga xamante ne ah, maanaam mooy loolu ñooñu la ñuy wax al mooy ñi nga xamante ne solo wuñ ci lu dul ci kenn kese moom lañuy solo soloo moom Euh, muy kon génne àdduna ca Kuufa comme ni nga xam ne loolu lañ ko waxe woon mu ne qaala nee xaddasana abi sama baay moo ñu nettal te mooy Xafs ibn Giyaas ibn Kalq dàqantalam nekkoon Abu Omar ngir dem moom mooy papay Omar ibn Xafs euh, moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom muy qaadi ca Kuufa rahimahullahu taala ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta moom mu ne qaala nee na xaddasana al amash te moom mooy euh, suleyman ibnu mihran al kahi al kaahili al asadi al kaahili rahimahullahu taala mooy abu muhammad mooy dàqantalam di ku kuufi te cosaanum nekk nekkoon nekk Tabaristan rahimahullahu taala mi ngi gane àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy imam bu mag boobu rahimahullahu taala ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala xaddasanaa abu saalih te moom mooy zakwaan mooy abu saalih assamaan azzayaat di waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon da doon dem kuufa lu bari di dama ko dellu si ak waa maanaam ngir da doon jaay ay diw maanaam diw moom naka noonu moo tax ñu naan ko az-Zayyat di ko wax as-Sammaan rahimahullahu taala nekk imam bu mag rahimahullah moom mooy nga xamante ne moom moo mag imam az-Zuhri waaye lu bëri la solo moom Abu Salih rahimahullahu taala moom mooy borom maam ñu ngi jëlaat na cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi صلى الله عليه وآله وسلم أي حديث من نجي كتب الستة من عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صحابة ينتبه صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك بن سنان آه، ابن عبيد بن ثعلبة آه، آه، الخدرجي الخدري الخزرجي رضي الله تعالى عنه مم mi saaba yenente الله عليه وآله وسلم moom mi ngi gane àdduna fukkeelu at laata gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna juróom-ñaar fukkeelu at ak ñeent mooy soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam euh, ñu ngi ci kutubu sitta maanaam moom bokk na sax ci muksiruuna yi nga xamante ne xadiisam moom mille cent soixante-dix xadiis ñoom ñooy euh, euh, mooy musnadam li nga xamante ne moom mooy imaam al buxaari ak imaam muslim dëppoo nañ ci 43 xadis ci ay xadisam imaam al buxaari wéetoo ci 6 xadis imaam muslim wéetoo ci 52 xadis ci xadis sayidna abu said al xudri radiallahu taala anhu annahu qaala nee na qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na abridu bi zuhri na ngeen seral ci tisbaar gi maanaam mu ne ndax bu tisbaar jotee na ngeen ci seral maanaam na ngeen di nekk ba mu ba kër gi sedd loolu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon gis nañ xadis boobu gisoon nañ maanaam maanaay imam al buxaari rahimahullahu taala day gën a yaatal maanaa bi di leeral rek ne li nga xamante ne moom la ñuy wax fii moom mooy tisbaar te bokk na ci liy dëgëral ne moom moo tax moom mooy ne riwaayaat yu bëri yi te xadis la boo xamante ne bëri na ci ñu ko solo ci anam boo xamante ne mënuñoo sikki sàkk ci ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ngir ne euh, solo nañ ko ci seydna abdullah ibnu omar ibnu alxataab أكتي سيدنا أبو هريرة أكتي سيدنا أبو ذر الغفاري نحن نصنع لنك سيدنا أبو سعيد الخضري رضي الله تعالى عن عن الجميع ممرين أنت صلى الله عليه وسلم دخل كل من من سلم تجسبا والله من أن ينسر تي وقت تجسبا ها من فإن شدة الحرب ndax li wér boobu moom mooy tartaru tàngoor min fay fayxi jahannama ci uppum jahannama la bokk mu ne wax ji ñoom taabaaxoo maanaam moom mooy Hafs ibn Ghiyaas ibn Talq ki nga xamante ne moom mooy ñi ko topp mu ñoom ñi def mu taabaa ci moom maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoom moom ak ñoom ñoo bokk benn sëriñ biñ ñu ko solowee moom mooy Sufyaan te moom mooy imam imaam Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri أه، رحمه الله تعالى مم أه، سعيد من مسروق بن ثور الثوري أه، رحمه الله تعالى من ويحيى مم بن سعيد القطان ولا رحمة الله عليه ما لم يومني ويحيى بن سعيد المفرق القطان رحمه الله تعالى وأبو عوانة مم والضاح ابن عبد الله اليشكري مي أبو عوانة rahmatullahi alal jamii ñoom ñii ñëpp ñoom ñoo ko soloo anil amash maanaam mutaabaa yi am nañ maanaam anil amash mu sa jële ko ci ci al maanaam kon fii li nga xam ne moom la imam al buxaari rahimahullahu taala di leeral fii mooy bari waayu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo moom moo tax mu daal di indi ñii ñëpp di leeral ne ñoom ñii ñëpp tamit soloo nañ jëmmi xadis bi loolu moom moo tax xadis la ak wax la joo xamante ne comme buñ ko waxee dañ naan ah jahannam tàkk moom moo waral lii maanaam mu mel ni day daal di wane ñi nga xamante ne ñoom seen xel dong lay jëñ lu ñuy jëfandikoo ne lii mu mënoo leen ci sikki sàkka ak loo leen maanaam maanaam sikki sàkka lii mënoo leen ci sikki sàkka moo tax ma indil leen xadis yu bëri yi maanaam waaye su dul loolu imaam al-Bukhari rahimahullahu taala day faral rek di indi euh, ci benn xadiis euh, day day faral rek di indi Euh, du du duy faral di indi lu bëri euh, jëmmi benn xadis mu indi ko ñaar euh, maanaam ci benn bunt bi duy soxla xadis yu bëri dégg nga kon xadis bi imam al buxaari rahimahullahu taala dana ko indiwaat xadis numéro 3259 imam ibnu maaja indi na ko xadis numéro 679 imam ahmad ibnu hambal indi na ko xadis numéro 1062 11 Euh, onze mille soixante deux ak onze mille quatre cent quatre vingt dix ak onze mille quatre cent quatre vingt dix sept ak onze mille cinq cent soixante treize euh, kon dinañ gis ne waa asxaabu kutubu sitta euh, imam al buxaari ak imam ibnu maaja ñoom rek ñoom ñoo ko solo ak ak rahmatullahi ala al jamii mu daal di ginnaaw mu ne baabun bunte ngi nii al ibraadu bi zuhri fi safar al ibraadu seral bi zuhri ci ci ci tisbaa fi safar ci tukki fii imam al buxaari rahimahullahu taala dafay leeral ne maanaam seral boobu ñuy seral tisbaar bi maanaam bu bu jant bi tàngee loolu du boole nekkee ci biir dëkk bi rek moom moo ngir ne maanaam wax na joo xamante ne dafa wuuteeg li nga xam ne la imam ashafii rahimahullahu taala ndax imam ashafii dafa jàpp ne bu fekkente ne nit ñi dañoo tukki te ñu nekk bokk campement seral googu dootul amati manam maanaam seral gi gi ñuy seral tisbaar bi di nekk loolu dootul amati maanaam loolu moom moo tax imaam al-Bukhari di ko leeral fii foofu ci kaw loolu ñu daal di gis ne am na ay mbir yoo xamante ne seral gi euh, borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim génne nañ ko ci lu deme nekk bisub ajjuma ajjuma duñ ko seral loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim génne nañ ko ci naka noonu jamonoy hiver jamonoy hiver seral gi tamit du am jamono hiver tamit seral gi du am loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim génnee nañ ko ci waaye lu dul ah, euh, waaye sudul yooyu bu fekkente ne jamono été la tàngoor wi maanaam bu boobaa seral googu dana am naka noonu ci tukki tamit du tere seral gi am loolu moom euh, euh, loolu moom lay moom la ñuy moom la ñuy wax ni maanaam mu ne imaam al buxaari moo tax rahimahullahu taala indi xadis indi bunt bii nose ko من قال بالاسناد المتصل في اول الكتاب الى حدثنا ادم ابن ابي اياس تمم مو مو امام بو nga xamantene ci wa imam wa basra yalla rahmatullah alayhim bi serign ci serign imam al-bukhari rahimahullah ta'ala tamam ادم ابن ابي اياس ابو الحسن العسقلاني رحمه ta'ala ا رحمه الله رحمه الله تعالى Euh, abu iyaas nag mooy abdurahman moom mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne Baghdad la mu joon a dëkk rahmatullahi alayhi moom imam al buxaari yi ak imam at-tirmisi ak imam an-nasaa'i ak imam ibnu maaja moom amma imam muslim ak imam abu daawud ñoom solowuñ ci moom rahimahullahu taala mu ne qaala xaddathana <coughs> shuba te moom mooy imam ibnu xajjaaj gis nañ ko léegi <coughs> qaala xaddasanaa muhaajiru abul xasan mm-hmm. uh, te mu ne mawlaala li bani taymillah maanaam doom maanaam mawlaala ci waa banu taymillah dégg nga loolu maanaam kooku moom tamit gis nañu ko uh, uh, gis nañ ko léegi moom mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa Zayd ibn Wahb moom dégg gis nañ ko léegi am abi zar alxifaari radiallahu taala anhu moom tamit dégg gis nañ ko léegi mun a qaala nee na kunna nekkoon nañ ma annabi ànd ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam fii safarin ci ab tukki fa araada mu daal di namm al muaddinu noddkat bi an yu addina ci mu noddule zuhri ñeel tisbaar loolu tamit ba tey muy leeral ne waxtu mbir mi moom ci waxtu tisbaar la woon beneen bi ci des moom mooy day leeral ne loolu ci tukki lañu àndoon mu nekkoon ci jamono joo xamante ne dañoo amoon campement loolu moom moo taxoon dégg mu ne fa ah, mu loolu ba mu ko defee fa qaala mu wax annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko abrid seralal maanaam moom mooy kon bi ngeen gis ne xadis bi ñu weesu maanaam fële def ne fa azan azana mu azinu nabi sallallahu alayhi wa sallam ne noddukatu yenente bi sallallahu alayhi wa moo nodd fii mu daal ne nam moon na di nodd maanaam kon dañ ciy daal di xamee ne ah, dañuy daal di xam ne nodd noddkat yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Seydina Bilal radiyallahu taala anhu dafa dafa dafa nodd beneen bi ci des moom mooy dafa nam moo a nodd eh, waaye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko déedéet bul nodd eh, eh, mu ne kon abrit mu ne mu ne ko négal waaye négal ma maanaam seralal summa topp araada mu namm an yu azzina ci mu noddaat fa qaala mu wax loo wañeen ko abrid seralal maanaam loolu dañ ciy jàngee biir maanaam dañ ciy jàngee ni seral gi du ñu ne la ah waxtu wi dugg ñu ne kon nag ah, waaw nañ xaar tuuti waaye nañ xaar cinq minutes maanaam mbir mi du du ci ay affaire cinq minutes ak euh, deux minutes maanaam mbir mi day dañuy xaar dañuy xaar dëgg daal maanaam li koy leeral mooy li mu ci teg mu ne xatta mbeteera ay naa ñu daal di gis fay at maanaam mooy jengu jant mooy takkandeeru li nga xamante ne moom mooy at tulóol mooy euh, mooy tund mooy doj yi ma doj ñu gis seen takkandeer euh, bu ñu gisee nag takkandeeru doj yi ci la ñuy doog wax mu ne fa ci la waxee annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di leeral lan moom moo tax muy muy mu mu def mbir mi mu ne inna li wér ba mooy shiddatal xar tartaruk tàngoor gi min fay xi jahannam min fay dafa bokk ci ëppub jahannama jahannam maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee tamit moom mooy ne su fekkente ne ker gi dafa am maanaam mbir mu nii dafa am euh, mooy ne boroom maanaam nitu bi sëriñ bi boroom xam bi bu fekkente ne dafa am lu muy def te mbir mi euh, mu xam ne ah nit ñi dinañ ne ah waa lii moom ana lan moo ko war a waral ngir ne mbir yi ci yoon daanul demee nii moom bu boobaa ñu daal di cay mu daal di leeral ana lan moom mooy li nga xamante ne moom mooy sabab bi tax mu daal di joxe boobu àtte ak lan moom mooy sabab bi nga xamante ne moom moo tax mu wax lool moo tax mu ne fa iza stadda bu taree alxar tàngoori fa abridu na ngeen seral bi salaati ci julli lu tax mu ndax mu daal di koy layee li nga xam ne moom la jiitaloon léegi mu ne waa te loolu gisul nañ ko maanaam gis nañ ko léegi maanaam te loolu daal li tax imam al buxaari rahimahullahu taala indi xadis bi fii moom mooy dafay leeral ne mbir mi daal du du maanaam te mbir mii nii ci tukki la xewe woon itam maanaam te loolu boobaa day daal di nekk loo xam ne day tontu li nga xam ne moom mooy wax bi nga xam ne moom la imaam Ash-Shafi'i wax rahimahullahu taala euh, te loolu euh, boroom xam-xam ma Shafi'i yu bari rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne imaam Ash-Shafi'i rahimahullah dafa gisul woon xadis bi waaye su ko gisoon moos la ko topp comme ni nga xamante ne noonu moom mooy baaxam moom rahimahullahu rahmatan waasi'a moom mi nga xam ne moo wax naan iza saxal xadiisu fa huwa mazhabi sa xadis moom su wéree rek loolu mooy sama mazhab am na feneen sax wax ne ko waxee sax moo gën a yéeme ndax dafa ne fekkente ne damaa maa ngi dund maanaam danaa ci dellu si su ma àdduna tamit xam leen ni soppi naa gis-gis ndax xadis bu gis gis ndax xadis bu wér am na ci mbir moomu loolu nag moom mooy doxalin yu mag yi ak borom xam yu sell yi radiyallahu taala anhum mu ne mu ne mu ne mu ne wa qaala ibnu abbas من الإمام ابن عباس ما ما عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه تحضر الأمة وترجمان القرآن بفور خير دين حمد مموي في ركعة الفجر بما قبر رضي الله تعالى عنه من جنة أدنى نتلو أتلا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مم من جنة أدنى soixante-huitième année ba dañuy wax tamit ne ba soixante-dixième année soixante-dixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom sayidna abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu taala maanaam euh, sayid euh, moom euh, bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñu ëpp lu ñu solo xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax musnadam mooy 1660 xadis comme niñ ko gisee woon nga xam ne ci ñaari saxiix yi muttafaqun alayhi 75 xadis la imaam al-Buxaari wéetoo ci 120 xadis imaam muslim wéetoo ci juróom-ñeenti xadis ci si xadis Seydina Abu Hurayra euh, ci Seydina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhuma moom Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu daal ni tatafayyu maanaam mooy li muy tekki mooy tatamayyalu mooy dafay jéng. lan moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala wax lii maanaam mooy ne euh, bu ñu gisee xadis bi dafa am ba maanaam baatu xattaara ay naa fa fay atta tulul maanaam mbete ñu daal di gis maanaam takkandeer yi maanaam takkandeeru doj yi maanaam bi nga xamante ne moom lay wax mooy jéng gi nga xam ne moom la takkandeer gi di man a jéng ba ñu ci doj yi loolu bi ñu ko gisee loolu lay wax ne fay atta lool maanaam imaam al-Bukhari rahimahullahu taala mënoon naa wax rek al fay u mooy al maylu maanaam fay u mooy jéng gi moom mooy takkandeer bu jéng gi mënoon na ko waxe noonu waaye waxewu ko noonu waaye dafa ne tata fay ya u bi maanaam maanaam li muy tekki moom mooy tata may yalu loolu nag wax la joo xamante ne dafa nekk ci alquran comme ni borom bi wax ne awalam yaraw ila ma xalaqa allahu min shay min shay'in yatafayya zilaaluhu تير بنن جانغلو القران تتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون من خنا غيسونو ني لي بوروم بور يالله سبحانه وتعالى بند تي ميري مانام غا خامتيني ميري سين كيري داني جينغ مانام داني جينغ تورني ا آه، تي ندي جور ان اليمين تي ندي والشمائل اتاموني ñoom ñëpp sujjadan ñuy aji sujjootan lillaahi ñuy buur yàlla woom daaxiroon te ñoom ña ngay sax noona maanaam di nekk ci di sujjoot ci buur di sujjootal buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam aaya boobu day tegtale ne kon mbir yëpp benn lenn lu ci nekk takkandeer yi ngay gis ñuy am maanaam seen takkandeer yi dañu nekk di sujjootal buur yàlla subhaanahu wa taala te tam fay yaw muy maanaam yata fay yaw maanaam mooy dañuy jéng anil yamini jëm ci ndeyjoor wa shamaa'ili jëm ci càmmoñ yi maanaam loolu tamit mu koy leeralee noonu maanaam aaya boobu nag moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di junj fii bi mu naan ndax ñaari qiraa la yoo xam ne ñoom ñaari yëpp qiraataani sax mashhuraani lañ maanaam mashhurataani lañ maanaam ñaari jàngilu alquran yu siiw lañ moo tax mu ne tata fay yow mu ne mooy tata mayyalu maanaam moom mooy dañuy jéng comme ni takkandeer bi def di jéng jëm ci ndeyjoor wala ci càmmoñ moom lay wax nii maanaam euh, ne mooy fay ak tulluuli mooy takkandeeru jéng gi ñu jéng loolu su amee mu ne loolu la xaar bu ko defee ñu mën a julli maanaam ñu xaar ba mu ba am takkandeer bu baax euh, te loolu noonu li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ko euh, mooy ne xam nga takkandeer xam nga déjà bu ñu jëlee exemple lu doj li lay maanaam mooy doj montagne su defee nii bu fekkente ne takkandeer bi dafa am takkandeer bi du gaaw a nëbb lépp ngir ne tak doj daa ngand maanaam takk ndeer bi day day njëkk nëbb benn partie ci montagne bi bu ñu demee nag ba takk ndeer bi génn montagne bi jéng carrément di jéng loolu moom mooy ne kër gi commencé naa sedd loolu moom mooy la wax ni li tax nag imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko nii comme niñ ko gisoon imaam al-Bukhari rahimahullahu taala bu muy firi euh, gis gis nañ ko ne su amee benn baat boo xamante ne baat bi dafa xaw a dafa nekk baat bu jafe ci biir hadis bi. bu fekkente ne am na baat bu ko nuru même bu dee ni mu ñëwee ci alquran wuute na ak ni mu ñëwee ci xadis bi formule alquran bi la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indi fii tamit looloo tax mu indi ba waxul fayu mooy maylu dafa nit tata fayaw li muy tekk mooy tata mayalu ngir ne alquran noonu la fa ñëwee maanaam tata fayaw zilaaluhu an al yamin wa shamaili sujjadan mm-hmm. loolu moom moo tax comme ni nga xamante ne ah, Euh, loolu lay wax ne euh, euh, comme niñ ko gisee woon rek saa am xaa an ak saf maanaam mu leeral xaa maanaam mu ne ngir ni mu ñëwee ci mu leeral baatu xaa an saf-safan ak comme xadis saydna abdullah ibn bi radiyallahu bi ñu gis naan bi naan dayyana idan dayyana qararita kathiran comme niñ ko gisee woon imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne dayyatu min amrillah ay في قرار كثير في قراطير طير كثيرا من فرطت في جنب الله أي ضيعت من أمر الله maanaam nga gis ne muy leeral nag à chaque fois imam al-Bukhari loolu la qaaydaam te loolu lu mag la luy wane ni nga xam ne noonu la lëkkaloo ak alquran maanaam noonu la nekkee koo xamante ne maanaam ne tiirim bi ay xadis la waaye mooy cosaan bi waaye daa iman daf lay leeral ne sama téere bi xadis yi yépp dañuy leeral njàngum alquran hmm. alquran la ñuy leeral hmm. moo tax suy am benn baat bu nekk foofu daf koy firi alquran lii nag imam ibnu abi xaatim rahimahullahu taala moom soloona waxu saydna abdullahi ibnu abbas bi radiallahu taala anhuma amma li nga xamante ne moom mooy xadisu sayidna abu uh, uh, uh, azar alxifaari bi radiallahu taala anhu loolu moom euh, gisoon nañ taxrij bi léegi walillahi alhamdu wal minna imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa di ne baabun waqtu zuhri inda zawali maanaam baabun bunte ngi nii léegi nag mu commencé nag ginnaaw ba mu leeralee ne julli tisbaar kat dañ ko war seral su jamonoy tàngoor bul ko julli teel ngir ginnaaw ba muy leeral mbir mooma nag léegi nag mu dugg ci di leeral beneen mbir maanaam léegi nag mu dugg ci waxtu tisbaar moom ci jëmmi boppam. Mm-hmm. ana kañ lay tàmbali. ak lan moom mooy atte yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci mboolem yi nga xamante ne moom mooy atte waxtu julli tisbaar ak julli tisbaar ana kañ lay jeex loolu yépp mu di ko leeral maanaam mu ñëw ubbi nose suñu bunt bi rahimahullahu taala ngir leeral yooyu mu ne waxtu zuhri waxtu tisbaar inda zawali ma nga faf jéngub jant bi mm-hmm. maanaam moom mooy lan mooy su fekkente ne jant bi dafa xëy dañoo xëy jant bi jóg jant bi su jógee dañuy gis takkandeer bi nga xamante ne moom mooy maanaam jant bi day jógee ci penku penku lay jógee bu ko defee takkandeer yi dañuy nekk ci soow su fekkente ne dañuy wéy nag di continuer jant bi day commencer jóg lu jant bi di gën di jóg takkandeer bi gën a gàtt di gën di ñëw bu ñu demee ba nga xamante ne jant bi dafa nekk ci digg bopp yi maanaam mooy diggu njolloor loolu boobaa takka ndeer bi nag moom mooy daal di maanaam mu takk après jant bi day taxaw foofu nag bu fa yegsee borom subhaanahu wa taala dafay taxawal jant bi jant bi da ngay gis du taxaw mukk bu xësee ba commencé jóg day dox di dox du taxaw waaye bu yeggee ci diggu bopp bi nag day taxaw maanaam bu yeggee ci diggu njolloor bi day taxaw bu taxawee ay deux wala trois minutes lay taxaw du ko ëpp rek commencé jéngaat jéngaat boobu nag bu commencé jéngaat nag su ko defee foofu nag loolu moom mooy zawal moom mooy toxu ak zawaalu mi moo ngi tekki toxu maanaam jant bi toxu gi muy toxu di jéng di jóge ci taxawaay ba mu taxawoon léegi nag di commencé jéng boo ko defee takk di commencé féete penku fee takk ndeeri bu jant bii doog a jóg soowu la ñuy féete waaye bii pas takk bi penku la féete sauf que lii mu am mbir moo xamante ne mat naa bàyyi xel ci mbir yi mooy ne euh, takk buy jóg te loolu lu mat a leeral la maanaam takk der suñuy jóg suñuy euh, suñuy jóg euh, du ñu jógee ci dëkk bu nekk ni dëkk bi mel maanaam day day day day day ci naka la takk der yi di mel ndax bu fekkente ne dëkk bi maanaam takk nit ñi dañoo féete dañoo nekk ci kaw maanaam dañoo nekk ci kaw euh, équateur bi ah bu nekkee ci kaw équateur bu nekkee ci équateur bi ñaare jant bi. day jugee penku ñëw soow directement maanaam ñoom du am problème euh, ndax euh, maanaam ne ndax jant bi day jaar seen diggu bopp yi su ko defee day ab benn jamono joo xamante ne ñoom jant bi day taxaw nii jant bi day taxaw carrément maanaam mbir bi du am takkandeer affaire bi commencé jàng après lu nit ñi gën a jege équateur bi nag takkandeer boobu noonu di maanaam muy gën di tuuti maanaam bu fekkente ne maanaam bu jant bi nekkee ci zawal ci ci ci ci ci ci zénith bi mhm. maanaam nekk ci digg njolloor boobu lu ñu gën di jege équateur bi takkandeer bi nit ki di am wala bi jëmm mbir mi di am mhm. su jant bi yeggee foofu di gën a tuuti mhm. su ko defee euh, euh, su jant bi yeggee foofu ba commencé tourner ni ñuy xamee ni tisbaar jot na mooy bu ñu demee ba jant bi nekk ci digg bi taxaw takkandeer yi Euh, takk ndeer bi nga xamante ne masalan jant bi nii la doon jóge takkandeer bi nekk ci ginnaaw mais comme que boo nekkee foo xamante ne du équateur bi bu fekkente ne fii la penku nekk ci ci kanam ni jant bi du jóge fii jant bi day jéng nii lay génnee du génnee nii est nii lay génnee wala nii solo hiver bi war a été su jant bi day génnee nii wala nii kon takkandeer bi day jéng su takk ndéer bi jéngee maanaam jant bi du def nii jóge nii ñëw ci kaw jaar ci kaw wàcc du def noonu mm-hmm. day def nii moo tax journée yi di gudd ci bu ñuy gën a sori équateur bi eh, été bi journée bi di gën a gudd et que bu wala hiver bu ñuy gën a sori équateur bi journée bi di gën a gàtt ndax ni jant bi di tourner la mm-hmm. bu fekkente ne au mu def mu def nii mu def nii mhm. temps bi muy jël day gën a yàlla euh, wala au lieu mu def nii mu daal di génnee fii def nii mhm. maanaam diggante fii ak fii mhm. loolu tamit mooy journée bi day gën a gàtt léegi su fekkente ne hiver bi la ñu ne su dee su dee su dee su dee maanaam période boo mën a nekk jant bi suy jóg nga gis ko identifier ko xam ne mi ngi jógee nii takkandeer bi mi ngi def nii léegi bu ñu demee ba jant bi yegg si fii jant bi yegg fii muy diggu njolloor su jant bi yeggee fii mooy diggu njolloor comme que jaarul suma diggu bopp man danaa am takkandeer ci diggu njolloor gi takkandeer boobu mooy am ci diggu njolloor gi nag faw ma xam lan la maanaam noonu la ñuy xamee bu taxawee dama koy natt ni may xamee ne tisbaar jot na mooy dama koy natt su ma ko nattee ma gis ne yëngatuwul maanaam moo loolu nag mën naa nekk man mën na nekk miir bi mën na nekk bant poto bi poto wala bant bu ma samp mën na nekk garab gi mën na nekk lu ne mais mën na nekk benn saak bu ma teg mën na nekk lu ne mais nañoo natt lan la suñu ko nattee ba ñu gis ne léegi jant bi commencé na tourner maanaam léegi jeng kon commencé na tourner takkandeer bi mi ngi commencé bouger à partir de moment boobu ci lay xam ne tisbaar jot na loolu moom la imam al di wax ni rahmatullah alayhi li boroom xam-xam yu wuute nag rahmatullah alayhi mooy waxtu tisbaar kañ la tàmbali kañ la maanaam kañ la tàmbali ñoom wuute wuñ ci ñun ñëpp d'accord nañ ci lii ñu jot a wax nii ne tisbaar di tàmbali kañ la tisbaar di jeex foofu la wuute yi am rahmatullah alayhi ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa maanaam maaliki ak shafi'i ak Xanaabila rahmatullah alayhim globalement amna ci luñu ànd moy ne waxtu muxtar manam biñu tan waxtu ixtiyaar yi mi ngi dem ba ci ker gi tolo ak jëm ci buñ ci yoké kéro jéngu jant bi buñ ci yoké kéro jéngu jant bi manam euh dama tek sama mbir mi ngi nii ah nii la jant bi ñëw ma am benn ker ma natt ker gi ker gi nekk deux centimètres ma am téléphone bi keram nekk deux centimètres ma gis ne bi jant bi commencé jéeg commencé maanaam takkandeer bi commencé bouger ker bi mu ngi toll ci deux centimètres baax na léegi su ma demee ba ker bi keru te keru téléphone bi tolloo ak njoolaayu téléphone bi taayu téléphone bi ba pare ñu yokk ci deux centimètres yi nga xam ne moo nekkoon keru départ bi par exemple téléphone bi à peu près euh, dix Hmm? dix centimètres un décimètre mm-hmm. dix ni dix centimètres a ngi nii waaye takkandeeram mm-hmm. bu jant bi dee jéng mm-hmm. mooy deux centimètres ma noté ko tisbaar jot na jant bi di wéy may seetaan téléphone bi fi mu ne jant bi dema dema dema dema dem ba nga xamante ne léegi téléphone bi takkandeer bi dem na ba mat douze maanaam dix centimètres téléphone bi plus deux centimètres bi jant bi doon jéng ni mu fi mu tolloon muy douze centimètres ci lay xamee ni ah ci fuqaha u maliki yi de ak Shafi ak Hanabila rahmatullah ñoom jàpp nañ ni léegi tisbaar muxtaar bi jeex na ñoom ci seen biir ñu wuute fuqahaa Shaafi'i rahmatullah alayhim ñoom ñu ne dafa am waqtu fadila maanaam bu dee Hanaabila yi ak Maalikee ñoom waxtu ixtiyaar yi la ñu muxtaar lañu wax mais fuqahaa Hanaabila yi rahmatullah Shaafi'i rahmatullah am dañ ne non non non ñun am nañu lu ñu tuddee waqtu fadila mooy waxtu ngëneel mooy lan mooy bu tisbaar jotee rek li ñu wax ne tisbaar foofu la tàmbalee mooy ci jéngu jant bi mm-hmm. ñu ne foofu mooy waxtu ngëneel bi ñu ne am na lu ñu tuddee ñun waxtu ixtiyaar yi ñun ñoo ko nuróole gaa yi ci des mm-hmm. mu am waxtu boo xam te ne dañ ko tuddee waxtul jawaas waxtu dagan mm-hmm. saa mu am coo saa mu am cibel waxtu boobu dagan na boo ànd maanaam ànd ak cibel euh, mooy te loolu noonu mooy tamit waxtu uzrin waxtu goo xam ne waxtu euh, ngànt la bokkut ak waxtu darur yi ci ñoom ci foofu ndax waxtu ngànt bi foofu li muy tekki mooy ki nga xamante ne dafa feebar doog a wér wala ki nga xam ne dafay boole tisbaar tàkku tàkkusaan hmm. wala yu mel noonu ñoom wala jigéen ji gis mbaaxam wala yu man noonu day dugg ci waxtu rosere mais dana dugg ci daruri kooku mais ki nga xamante ne dafay boole dañ koy wax tamit waxtul jame wala waxtu ausrin maanaam dañ koy dañ koy boole dañ naan mooy ki nga xamante ne euh, diggante bi takkandeer bi maanaam bu dee exemple bi ñu jëloon nekkee douze centimètres ba keroog ñu ciy yokkaat beneen taay maanaam mooy deux fois taayam plus taayu plus taa yu gi muy muy ñaata muy kon vingt deux centimètres bu taayu takkandeer bi yeggee ba vingt de centimètres ñu ne ah lii de moom wax dëgg yàlla mooy waxtu ñi nga xam ne dañoo nga am ngànt voilà dañoo am ngànt waxtu boole gi nag dëgg mooy waxtu yi nga xam ne mooy waxtu bi tàkkusaan di tàmbali ñoom boobaa da gis ni loolu foofu lañ dugg am ñi nga xam ne ñooy fuqahaa Maaliki ak xan ak Xanaabila rahmatullahi alayhim ñoom amuñu loolu ñoom benn waxtu la mooy bu mooy comme exemple douze centimètres yi rek ci lay yem. exemple bi nag mooy exemple lu jëm nit ki tey par exemple nit moom nu mu koy xamee mooy moom day taxaw wala bu dee poto la yor wala benn bant wala yu mel noonu mu ci xamee heure bi noonu lay def maanaam kon lii nii moom mooy heure bi ni mu koy xamee te lii mbir la moo xamante ne jarul kenn di dugg benn école. pour mën a xam nuñ koy defee kaw kaw bi mësta jàng alphabet bi mën na ko xam mën na ko xam ndax day natt rek ki nga xamante ne jàng naa euh, agrégé na ci mathématique tamit dana mën a xam ni muy def maanaam mbir mu simple la règle la bu simple bu aju rek ci jant bi kañ la jéng naka lay demee mu jeex tàkk loolu moom mooy bu fekkente ne ñun suñu euh, mooy heure yi nga xamante ne euh, ñun noonu lañuy ñuy xàmmewee noonu lañ koy xàmmewee te képp kenn ak foo mën ne amoo montre amoo calendrier yaa ngi dégg mm-hmm. amuloo euh, application amoo dara nii nga koy xàmmewee mm-hmm. loolu ñépp dañ ko war a man maanaam amul comme application yaa ngi bu ñu sonal bopp parce que mën nga dem foo xam ne sa téléphone day réer sa application yi réer nga nekk ci àll bi heure julli jot danga ko war a xam te temps bi mu lay jëlal pour nga xam ko lii nii euh, du temps bu bëri du temps bu bëri gis nga nii wax nañ ko léegi xam nañ hmm. xam nga bëriwul lii hmm. voilà ci di kii di teg teg doomu daawam wala muy teg maafeem wala yooyu maanaam jigéen ji mën na koo jàng ci diggante boobu mm-hmm. maanaam jàng nu ñuy toggee doomu daaw moo gën a jafe lii ma wax mm-hmm. maanaam kon war nañ ko mën a xam mm-hmm. yaa ngi dégg euh, takk euh, euh, léegi mu def tey su ma ko bëggee xam ci yeneen jumtuwaay mooy. su ma xamee heure bi jant bi di jóg xam heure bi jant bi di so loolu ñaari mbir la yoo xamante ne dama ko war a mën a xam maanaam te loolu météo mën na ma cee informer maanaam jant bi ban heure lay jóg ak ban heure lay so man mu mën ko calculer pour nga xool ba xam yow calendrier bi nga yor ni muy baax na wala déet su ma xamee heure bi jant bi di jóg ma xam heure bi jant bi di so dama koy xaaj ci digg bi bu ma ko xaajee ci digg bi teg ci trois minutes mooy dinaa xam ne jant bi commencé naa jéng ndax waxtu woowu du weesu trois minutes deux trois minutes lay doon euh, ma xam ne ah waxtu tisbaar day kon jot na maanaam exemple la euh, jant bi Mingjok par exemple à 5h00. 5h du matin le jour. Didou 19h. 14h. Non, non. 5h le jour. sous sous 5h, environ 21h le tête. 5h du matin, le jour. 21h le tête. Donc damay jël 21 h 21, heures vais 5, ma ci heures. 16, mm-hmm. journée de 16 heures lay durer. Mm-hmm. diggante bi jant bi di jóg ak bi muy tëdd. Mm-hmm. dama koy xaaj ci 8. heures. kon heures ak 8 heures dama ci 5, dama vais ma yokk ci 13 13 heures. kon 13 heures ci la waxtu bi di jot. la di trois minutes. tisbaar jot léegi su ma bëggee xam kañ la tisbaar bi maanaam diggante bi maanaam waxtu wi di def euh, maanaam kullu shay'in zullu mislu maanaam bépp mbir du tolloog keram ah nga yokk ci li ñu tuddee zullu zawal maanaam keru jeng gi mm-hmm. loolu su ma bëggee xam lan la tollool ci heure yi mm-hmm. ci exemple bi ma joxe damay jël 13 à 21 h 13 h je fi muy nekkee ci digg bi ak 21 heures 8 heures de temps 8 h yi ma yokk 8 h en deux 4 mmh. heures 4 mmh. heures je yokk ko ci 13 heures muy 17 heures mmh. kon 17 heures ci la waxtu tisbar bi di jeex foofu la tàkku sànti dugg waaw léegi loolu mooy ci fuqahaa u maaliki yi ak shaafiye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhi fuqahaa u xanafiye yi rahmatullah alayhi ñoom dañ naan déedéet zilla kulla shay'in mislayhi ñoom loolu lañ wax daañ ñëw ci liñ tegtaloo insha allahu taala maanaam ker keru lu ne ñaar ñaaram wax nañ sànq ci bokk na ci yiñ tegtaloo mooy xadis yi ñu doon wax naan la bu ñuy seral ab maanaam ab rido ab rido jaa a fay ut tallul hmm? maanaam kon eh, dee leen seral ab rido bi zuhri fa inna shiddatal xarri min fayxi jahannam xadis yooyu lañ doon gis sànq ba tey du dëgg kon ker gi su yegge su ci deux fois deux fois taayu mbir mi ci sama exemple téléphone bi ma jëloon euh, madame 22 plus 2 deux centimètres yi nga xam moy tak moy ñoom foofu la tisbaar tàkkusaan muxtaar bi foofu la baax na mm-hmm. muxtaar tàkkusaan muxtaar tisbaar tisbaar ci xanafi rahmatullah alayhi foofu la yem deux fois la taille plus taayu mm-hmm. baax na mm-hmm. euh, léegi xanafi yi rahmatullah ñoom su dee ci ñoom sama calcul nan laa koy calculer hmm. euh, pour ma xam seen heure bi fan heure bi fan lay jeexee mooy dama koy xaajaat deux fois c'est-à-dire loolu cas de figure bi 17 bi ma jël hmm. au lieu ma jëm ci 17 heures 17 hmm. bi ci boppam ak 21 heures lay xaajaat muy ñaata 21 heures mooy 17 54 muy ñaata. mu yegg dix-neuf heures kon ñoom dix la muxtaaru tisbaar bi di jeex hmm. te ñoom bu boobaa foofu la muxtaaru tàkkusaan bi di tàmbalee hmm. ci exemple bi ma jël hmm. baax voilà léegi insha allahu taala ci jotaay bi di ñëw dinañu dinañu peut-être ñu revenir ci